ñu ñu yónni mooy peuple bi te pëpp dañoo yàkkamti. Euh, euh, tey avant may dem ci ci ci Cheikh gestion gestion des ressources yi euh, dafa indi ay ay ay coow lu bëri surtout notamment contrat yi nga xamante ni état bi fi nekkoon signé ne ko ci li nga xamante ni moom moo jëm ci exploitation. pétrole bi gaz bi ak ak ak pétrole bi. Mhm. gis nañ ne ñu bëri jàpp ne li nga xamante ni moom la ci état du Sénégal war a am peut-être. waroon na ko mën a waroon na ko mën a ëpp ñu dégg ci lu lu bari bëri Ousmane Sonko wax na ko euh, coalition Diomaye wax na ko ci renégociation li nga xamante moom mooy ses ses ses contrats. Mhm. est-ce que tey mën nañu xaar mu ne dafay effectif par rapport ak li nga xamante ni moom la. moom xam nga muy man di Ousmane Sonko di son excellence euh, Diomaye ñun ñëpp décrit ni une mm. un contrat c'est un contrat. man ba fu ma toog di wax ak yow nii. j'ai par la lisibilité des contrats contrat boo gis nag am na cahier de charge dañ naan la bépp contrat de concession am na ay clause de révision clause yooyu man gisatoo ma ci sama bët. pourtant ñoom nee nañ publier nañ contrat yëpp ci non non je ne parle pas je ne je ne parle pas li ñu publier mooy les rapports de présentation ak contrat yi nga xamante jàpp nañ ni c'est les contrats de quatre-vingt-dix-huit de 98 bi nekkoon le code attractif boobu dañ doon inciter les investisseurs à venir chercher s'il y a du pétrole gaz bu ñëwee xool bu gisee baax na bu gisul perte na kooku on n'en disconvient pas mhm. est-ce que ci beaux yeux Sénégal ak Sénégal ni mu pauvre dinañu jël dugal ñu dans le cercle restreint des pays producteurs de gaz mhm. parce que le potentiel est là quand on de ressources ça veut dire que ne pas encore quantifié mhm. maintenant quand on parle de P10 P50 P90 mooy probabilité cette ressource mën nañ ci am potentiel économiquement pour génne ci commercialement pour génne ci 10 pour cent 50 pour cent 90 pour cent bi ñu xoolee xam ni le Sénégal c'est des milliards et des milliers de milli des de milliards de mètres cubes de gaz qui sont la ñu ne kon war nañ mën a dugg dans le cercle restreint des pays producteurs de gaz et de pétrole mais n'oublie pas que le modèle de contrat qu'on a signé le Sénégal a signé un modèle de contrat de partage de production d'hydrocarbures moom la ñuy wax bay seddoo man am nga suuf amoo dërëm boo ci def man man la mën naa indi gerte mën naa indi puudar mën naa indi engrais fas bi dama la koy loué nangam ak nangam samay surga dama leen nangam nangam bu ñu bayee ba gerte gi ñor lépp ñor. ñu calculer lépp mu ne nii la toll dama koy jël njëgu tiir li ma ci def ba pare la des ñu doog koo séddoo bu dee ci wàllu pétrole bi dañu ni soixante quinze pour cent bu fekkee ni ressource ba ma nga nekk au delà de cinq cent mètres de profondeur d'eau te ci contexte blogu bi c'est plus de un kilomètre cinq cent voire deux kilomètres fa nga xamante fa la pétrole bi nekk kon soixante quinze pour cent la la production journalière par jour ñaata la ñuy wax du cent mille barils waaw 100000 baril boo ci génnee 75 pour cent mooy 75000 baril kooku dañ koy dédu dé loolu la ñuy wax loolu la ñuy wax le coût d' investissement anglais di ko wax le cost oil loolu dañ koy génne et c' est pas imposable bu ñu ko génnee lu fa des du 25000. Mm. Petrosen ci jeune venture bi moom daf cee am déjà 10 pour cent gratuitement mm-hmm. mu génne ko loolu kenn du ko imposer mm-hmm. la moo fa def du 15. 15 pour cent 15 yooyu après la ñuy séddoo loolu tax ñu gisuñu ci suñu bopp. coût d'investissement bi da koy génne ba pare ñu doog a wax waxu tableau de partage de production d'hydrocarbures ndax moom du perte pour muy claire léegi nag ci contexte bi nga xamante ne tey moom mooy ci bloc bi man nous avons plus de vingt-neuf blocs de pétrole au Sénégal on est d'accord ñaari bloc kii kese ñett yi kese lañ ci lañu lañ ci teg loxo muy Saint-Louis sur le gaz Teranga Yaakaar sur le gaz ak Sangomar à part ces blocs là amatul beneen bloc bu ñu signé contrat d'exploitation ci ancien code bi parce que nous avons un nouveau code pétrolier gaz gazier loolu tax ci programme bi Diomaye bi ñu ne yeneen bloc yi ci des yëpp dañuy dooleel Petrosen jox leen ko te man gëm naa ni en tant qu'expert waaw merci te man gëm naa ni en tant que qu'expert nous devons changer le modèle de contrat de partage de production d'autant plus que maintenant les réserves sont prouvées ñu def comme les pays arabiques les pays arabiques c'est des contrat de service mooy li ñuy wax les contrats buyback en anglais tout ce qui est flow line maanaam de la ligne de production de namont en aval tribord bâbord ñoom ñoo koy gérer seen bopp réserve ñu ngi nii kaay ma soo ma génnee lii aw lu ma ko génnee yow am nga capacité financière pour génne ko boo ko génnee cent mille yu nekk mën naa la ci jox trente mille xam nga ko risqué wul ndax xam na réserve yi mu ngi nii ko kenn du ko bañ bu ñu ku bañ bu total bañee nga dem seeti Russie Gazprom bu ñu bañee nga xooli Exxon Mobil bu ñu bañee nga dem seeti bii BP bu diw bañee nga seeti keneen réserve bi day fekk réserve bi disponible ba pare. waaw ah. day fekk réserve bi disponible ba pare parce que bu réserve bi disponible bi c'est c'est des risques yoo xamante ni daf mën nga dem euh, exploiter fekk fekk. réserve est-ce que xam nga ni man am na tey ñoom loo xam ne wax nañ ko man ça ne me convient pas. Mhm. le bloc de Rufisque offshore profond superficie tool nekk dix mille sept cent quatre vingt et un kilomètres carrés kan lañ ko jox du total ah bi ñu leen di jox bloc boobu dañ ni leen da ngeen di tabax institut national du pétrole du gaz mooy INPG total moo ko. moo ko financé mhm. moo ko tabax mhm. ba pare jeex nee nañ gisuñu dara nga jël ci 30 pour cent jaay ko Petronas yow gisoo dara pare di jaay Petronas cela veut dire qu'on se leurre pas muy gaz di pétrole ah c'est une c'est euh, niñ ko niñ ko niñ ko niñ ko niñ ko waaye ay cuvette la bu la ci kenn nax comme ni ngay toog di gis comme ni ngay toog di gis euh, par exemple ñun la foreel nga foore ba egg ci yenn bëtu ndox yi ñun la noonoo des na demal ba egg ci nappe phréatique bi cela veut dire que ni le Sénégal et potentiellement riche en gaz et en pétrole d'ailleurs le Sénégal est plus gazier que pétrolier tout à fait tey blog est-ce que ñoom informé nañ Sénégalais yi nii fii nga xam mooy Sangomar ñuy exploité tey pétrole bi deux ans après xam nga foofu am na ay réserve am na ay réserve yenn réserve gaz cent treize milliards de mètres cubes de gaz mu ngi foofu mais gaz boobu wuti naag beneen gaz bi gaz boobu moom la ñuy wax GPL mooy gaz pétrole liquéfié boobu mooy probaan ak bitaan moom la ñuy togge ci kër yi moom la xadi di xadi gay di togge derkle moom la sama yaay ajjuma woon di togge ngaay mexe ak ñeneen ak ñeneen loolu mooy yi ñuy togge ci kër yi waaw bu ñu demee ñun bay toggee léegi di exploiter gaz bi ñu toggee ci kër yi xam nga ni kon gaz day wàññeeku waaw loolu di wàññeeku fan la jëmaat du sa poos waaw léegi yow ngay produire léegi benn barilu pétrole bu nekk cent cinquante neuf bu nekk dina la génne li ma la wax sànq est-ce que xam nga sur les réserves uniquement de Petrosen ñu bañ koo jaay ñu raffiner ko dina la génneel plus de vingt millions vingt deux million cinq cent mille litres waxaguma nag la part de l'État du Sénégal waxaguma tey pétrole bi nga xam ne day dugg Sénégal état ki deux cent francs on est d'accord tey euh, kii nga xam ñoom ñooy indi euh, kii euh, pétrole bi tanker yi indi pétrole bi litre bu nekk day dañ ko dañ la koy dañ la koy facturer yooyu yëpp tey nekk un pays producteur donte li ngay produire ci pétrole bariwul yenn bariyaa yi mais yow géré na yow kiy jënd essence mm. kiy jënd gasoil kiy def nii kiy def nii kiy def nii kiy def nii mm-hmm. te bu boobaa yow tey tu deviens un pays producteur de pétrole et de gaz xam nga kon bu ñu demoon tey ñu togg ci ak ñu ni ah le Sénégal maintenant am nañu seen mm-hmm. société nationale des marbres Sénégal am nañ seen société nationale des ciments du Sénégal am nañ seen société nationale des marbres du Sénégal am nañ seen société nationale ci li nga xam mooy des engrais du Sénégal am nañu société nationale des phosphates du Sénégal am nañ société nationale de l'or du Sénégal mais usines yooyu yëpp industrie yëpp ñan ñoo ciy liggéey du doomu sénégalais yi dëkk bu nekk ñu def ay centres de formation par rapport à ces ressources naturelles qui sont dans ces zones mais ñu war a fay fay surtout le fonds de péréquation et d'appui bi nga xam muy nekk vingt pour cent nga xam ni mag Sall moo jël décret dix huit euh, décret deux mille dix sept muy dix huit soixante dix neuf bi nga xamante ni moom mooy ni vingt pour cent le fonds de péréquation d'appui dafay nekk vingt pour cent malheureusement malheureusement malheureusement à six ans en six ans il n'ont donné ñi nga xam ne ñoom ñooy dëkk yi que trente huit milliards de nos francs le fonds développement local du zéro virgule cinq pour cent c'est dans le code minier chapitre 6 article 113 moom moo ni 20 pour cent fonds de péréquation et d'appui mhm. chapitre 7 cent quinze moom moo ni la bépp société bu nekk ci gox dafa war a génne zéro virgule cinq pour cent chiffre d'affaires annuel or taxe des entreprises qui exploitent. dinañ ci dinañ ci ñëwaat léegi li ñu dese ci waxtu bëreetul ah. xam naa ne juste danaa ñëwaat ci yow deux minutes rek ci ci ci question euh, li nga xamante moom moo jëm ci ci ci ressources minières yi euh, euh, Cheikh. bu ñu bu ñu déggee suñu suñu suñu invité mën nañu jàpp ne tey Sénégal manqué wul dara pour. pour mu mën a tabax euh, li nga xamante moom mooy moom mooy réew parce que tous ces ressources naturelles yi nga xamante ni euh, Samba Tall Sarr wax na ko fi tey je pense que ne tey jafe-jafe bi euh, nga xamante ni moom moo war a doxal yenn yi que ñu mën a egg ci li nga xamante ni moom mooy état bi nga xamante ni tey dana nekk un état waaw effectivement bon avant de répondre à la question mais xam naa ne man dinaa jagleel sunu invité benn question. Mhm. mooy jamaa yi ñuy tudd. Mhm. dégg naa mu wax si waaw sunu richesse yu bëri mais jamaa yi est amul après nga leeralal ñu ko xam naa incha allah mm-hmm. mais encore une fois bon euh, le Sénégal c'est un pays riche finalement mm-hmm. bon même si économiquement pour le moment on est on est considéré comme état un pays mm-hmm. pauvre mais potentialité yu bëri na te suñu invité relevé na ko euh, yeneen experts aussi relevé nañ ko te fooguma que tous nos experts puissent se tromper en même temps parce que finalement bon euh, ça n'a pas aussi yenn sociétés yi nga xamante ni c'est des multinationales du ñu ñëw Sénégal juste pour nos beaux yeux bu ñu fi ñëwee c'est parce <laughs> duñ fi ñëw parce que dara nekku fii donc euh, là euh, comme ni mu ko waxee on a dépassé euh, la phase d'exploration ay yooyu noonu léegi xam nañ ne am na léegi nag nan la ñu def ba nga xamante ni dinañ ko mën a exploiter léegi nag heureusement moi je suis je suis rassuré quelque part parce que nee na on a environ vingt neuf blocs mhm. n'est-ce pas yu ñu yu nga xam ne mu ngi Sénégal pétrolier en onshore comme en offshore waaw léegi nag trois kese je pense euh, ñoo si ñoom. lañ ci joxe en exploitation donc ça veut dire à. hormis bi nekk Ngajaga en onshore. Ngajaga mooy bi doon tàkk. waaw donc tey moins 4 donc 29 29 moins 4 donc on a au moins 25 yi nga xamante ni pour le moment. joxaguñ ko kenn signé guñu contrat ak kenn normalement donc yooyu noonu je me dis que euh, c' un moyen euh, très important ba nga xam ne le la. da lay verrouiller voilà mm-hmm. ñu ba nga mm-hmm. xamante ni la ñu dal peut être si yële. Euh, quand même le président euh, nee na dina négocier waat et puis c' est tout à fait normal mu mu les